Munu jël ay mensonge fen bu koy daganal daganal comme en France. non dina am asile en France parce que les marionnettes de la France ñoom ñoo doon ñoom ñoo gemboon pour mu daaneel Ousmane Sonko malheureusement munu ko danel. munu ko danel. te marionnette boo mu yooyu ñooy France di sàkku ci wa France pour ñu may Adji sar këyit sous forme que buñu ñu Sénégal dinañ ko ray parce que ñom lool lañuy wax tugal gi lool lañuy wax tuba bi ki buñ bo len ko le bu delluwaatee feulé dañ koy ray voilà le message dont il véhicule dans dans ces pays là alors que c'est faux Adji Sarr kan moko mo da nga mos gis Sénégal bu sénégalais bu agressé Adji sar fi mos nga ko gis ndax mos nga ko gis. Hmm. aji sar musu won fi ne sarax ben soirée yu sundur xamo ben soirée kan kan moko dor ñu non fête ay anniversaire am de wa kan moko dor di gisse ay gisseem ye eh? sénégalais dañu am jot am sax sénégalais dañu am jot aji sar sénégalais ñoo amul jot aji sar señ bi xam nga ñan lañuy amal jot ñu ñu jël aji sar dugal ko ci casting bobu sénégalais ñoom lañuy dor bayyi aji sar yi ñoom lañuy door mais do Adji Sarr Adji Sarr dafa dafa touti ci sénégalais ñu ñu wara door sénégalais faalé wuñu ko mën na ñëw fii toog fii Sénégal def lu ko ne kenn du ko faalé ñi ñi ñu ñu faalé ñu ñu soxla ñom ñu ngi ci kaw ñom lañu soxla il faut que justice soit faite soit faite dans cette affaire là. alors Arfan mu ne euh, donc amna solo bu baax ba baax pour ñu taas yi war a mën a xel euh, par ak walu wunu mel Arfan leen lo xamni tam itam ciow moy euh, Jean-Luc euh, malenchon di daal ñëw fii si Dakar euh, ci invitation bi nga xam tam Ousmane Sonko moko ko def en tout cas mu que le leader de la France insoumise Jean luc nak dina daal di entamé du 14 au 18 mai benn visite fi Sénégal mu avec wul and ak ben délégation bo xamni tawon itam wul mëna and ak mom Ousmane Sonko moko invité boobu de visite nak dafa daal li nga xam nekk moo lalu si euh, consolider euh, consolider les liens entre le PASTEF et la gauche radicale française euh, qui a ardemment soutenu le camp d'Ousmane Sonko lors de sa longue bataille judiciaire avec les autorités ma ni kon Jean-Luc nak ànd nak Ousmane Sonko si bi nga xam ne itam doon na ko daal di ak président Macky Sall mom itam daal koy soutenir bu baax baax muy incarné gauche radicale ba fa nga xam ni itam mooy ko France mom nak eh, Ousmane Sonko da invité fi si Sénégal exactement diggante ak le 14 jàpp li nga xam nekk le 18 mai de plus en plus, Ousmane vous se rattache avec ces Français exactement à fond. Oui, comment, euh, euh, comment Jean-Luc Mélenchon, c'est le président de la France insoumise. C'est le président de la, de la France insoumise. Moi, mm. soutenir <laughs> le parti PASTEF. Bon, opposant. Ça aussi, vous l'avez fait. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes en France soutenir Ousmane Sonko en tant qu'opposant et le parti Pastef néew ce lool ci ay tubaab yi te surtout nous de France Nous avons ne soutenir le Pastef et mm. Ousmane Sonko. Mm. mais moom il le faisait publiquement donc Moi am un lien de fraternité bu digante ou Pastef Sénégal Avec le gauche radical de la France mooy jean un Mélenchon bi ngay gis mm. mu soutenu soutenir aussi le discours souverainiste bo xamante ne Ousmane Sonko ak ay ay ay ay këram waa këram loolu la ñu woote au Sénégal moom Mélenchon loolu la yàgg soutenir en France et aussi jàppale Ousmane Sonko ci combat boobu moo tax lu mel ni donc dafay ñëw dëggal ni kay c'est vrai que ñoom dafa am lu leen boole mooy maanaam l'injustice le panafricanisme Afrique war na moom boppam parce que moom Jean-Luc Mélenchon yàgg naa plaider pour loolu pour que la France bàyyi tranquille les pays colonies là le Sénégal ak euh, ñu ñu ko wër ñu bàyyi ñu doxal sen sen affaire parce que mën nañu ko euh, non mën nga ko ah, critiquer ah, ah. le Sénégal la France n'est pas ennemie du Sénégal ça aussi il faut ngeen xam ko. donc sen forme de le Sénégal yi voilà exactement dañu né France il faut que ñun dañu bëgg dag boom, buum ji nous ñu on est un pays indépendant mën nañu jël suñu bop ay décisions mën nañu donc euh, euh, euh, souveraineté économique monétaire et politique. Hmm. Sénégal lool la y a réclamer ci France mais waxuñu ni que la France est un ennemi du Sénégal jamais la France est toujours a toujours été un allié de longue date. du Sénégal mais allié bi na ci ay man maintenant lool la ñuy woote nag. allié bi na tegu ci ay bases yu légal manam coopérative gagnant gagnant la coopération gagnant gagnant la yow boo naree jël ma ma jël ma ma sama bob. Sénégalais, l'eau, les réclamer la France. Mais on ne dit pas que la France est un ennemi du Sénégal. Ah, c'est pas ça. Maintenant, Ousmane Sonko avec luc c'est quoi Amouni droit, am lien. Non, amouni droit, am lien. Mais Ousmane Sonko de plus en plus, hein, Non, non, mais, non, mais attends. Euh, euh, euh. Ils ont, il a le droit. Contrairement à ces Non, non, c'est pas, c'est pas à eux de dire Ousmane Sonko, voilà, ou à Passef. Ni, ni, am droit, am ay harit yi amoo droit am ay xarit comme ñi euh, non xamna ni ki su dina jul coow non dama ne amuñu amuñu droit ne len ñi ngeen wara am comme xarit wala ñi ngeen am droit am comme euh, euh, waro len am droit am ki ñi comme xarit on dit pas ça mais c'est c'est sorti de Jamra jangate non, non c'est que Jamra, c'est comme Je n'aime pas tellement parler de Jamra. mamatar Non, je n'aime pas parler de Jamra parce que. dama Parce que Jamra, c'est c'est Benokurel benn la ya ah, dina de oui ben la voilà. voilà il a le droit. il a le droit. ben voilà dañuy dañuy Sam yi donc ils sont dans leur rôle wa à ils sont dans leur rôle. ils sont dans leur rôle mais il faut ñu nous, aussi. Ni que le monde est planétaire franchement non non c'est pas c'est pas ça ça hmm. euh, un homme politique doit être ouvert un homme politique doit être ouvert do tëju ci benn euh, coin nga ne non man damay dans duma falé kenn c'est pas ça es aussi bo beugé gagner combat da ngay déglu des avis divers Ousmane Sonko bu beugé gagner combat moy la souveraineté de l'Afrique ba muy woote ba war a tax ñuy muy dox ay tànk jéego dem Mali doon Burkina Kiri. non non moom lu muy wax maanaam. dama ne euh, ñi supposé nekk borom ñaari tur yi exemple euh, côté boobu la bëgg a waxee concrètement. borom ñaari tur yi xam nga loolu tamit beneen discours la beneen mm. beneen débat la. Mm, mm. benn ñoo do do borom ñaari tur yi beneen débat la. bu fekkee borom ñaari tur yi te yow leer nga am nga ay firnde yu leer ni que kii borom ñaari tuur yi dans ce cas mën nga ko wax. ki fi ki fi ñëwoon je me euh, bu fekkee yow amoo amoo ay preuve yu leer bul tuubal doomu jàmbur ni borom ñaaru tuur yi. mais fii au Sénégal li ma xam. fii Sénégal fii du ñu mës a daganal fii mbirum ñaari ñaari tuur yi jamais au plus grand jamais ba àdd abadan daay man bépp nit bu yaakaar ne fii mën nañu daganal fii. ay walum ay ay ay homosexualité da nga nak sa bopp. Euh, on ne fera jamais. Hmm. su boba sa ñun ñoy wacc mbedd bi jaayante ko rayante. non ça ne se fera jamais dans ce pays. jamais alors ñu ñëw aussi li nga xam ne modi ma Madiambal jaay mi ngi hmm. félicité Sonko ak jomay si décision bi nga xam ne jël nañ ko arrêtant toute construction exactement sur le littoral ñom ñoom wat ni ci ginaaw nak nak les constructions euh, démarré wat neen am ñuko aussi ñuko ko weddi que ni euh, dëppoo nag ay waxu ma Madiambal jaay ñi xaaraat. Atepa bi ko waxoon mu génn waxaat ko concrètement Arfan. xam nga daal di gisee démb sa sortie de Madiambal Diagne encourageant félicitant Ousmane Sonko ak Diomaye. dama ne man je suis pas dans ça xam nga la laa gëm dafa jël décision pour arrêter la construction sur le littoral na ko respecté te wëyal ko. Hmm. na ko wëyal. mais enfin su nekkee non non non dama dama il y a pas une question extérieure wala une pression extérieure. l'état l'état doit rester fort. Le domaine public maritime Ken du ko tabax yàgg la ko je crois que tu peux m'en témoigner le domaine public maritime ken du ko tabax ça appartient à tout le monde même les étrangers sax la parce que plage la mën nga ko defar ba ku bëgg a mu librement c'est un domaine maritime là, public Ken waru ko tabax hmm. il faut arrêter ça aussi bàyyi leen di ne non pression wala leneen nag leneen man gëwuma loolu xam nga la laa gëm l'intérêt des sénégalais man moom moom laa gëm. il y a pas de pression nga jàpp il y a pas de pression nañu bàyyi di naan ay pression pression pression c'est quoi la pression un État doit être fort et souverain c'est ça l'eau lagum. alors c'est clair domaine public maritime ken du ko encore une fois. Ken du ko tabax. Euh, am si un titre foncier qui le domaine public maritime. Ken amoko? non amuko. par décret. dama décret le décret doit être abrogé Ken amoko? est-ce que yo xam nga domaine public maritime. même le premier hôtel qui a été construit dans le domaine public euh, maritime c'est l'hôtel Lagon lagon mom moy le premier hôtel bu ñuy tabax ci euh, commandé le de balaa ñooñu lagon la ñu Mané ah, ma lol hôtel yooyu yi ngay wax ay ñom tier bi ay ki lagon lañu jëk tabax ci ci ci ci cor ki commandé ci le domaine public maritime té lagon am bois lañ ko tabaxe won parce que dañoo sóoraale won ni que benen régime bu ñoy après ñu génné ko bañ nañu sa ba tabax ko ay avec avec am bois mais le la loi maintenant aujourd'hui on a un domaine public maritime les gens sont en train de construire partout ci ay yaama ne. ñu la non. kan moi, am titre français, ci un domaine public maritime décret dañ koy abroger, ba pare raser le, raser le. Hmm. ouais mais ils n'ont pas droit de joxe ce décret là Macky n'avait pas droit mais euh, il l'a fait. qui concerne la commercialisation wala kon euh, euh, l'industrialisation. la corniche là donc est encouragé mais à ce qui concerne. corniche hôtel sur place. état état et ça va revenir dans l'intérêt dans le trésor public l'État quand je dis l'État c'est tout le monde ñun ñëpp ci état lañ l'état état exercer état le domaine public maritime. bi euh, gis le littoral. état moko wara a ko defar pour ne serait sénégalais mën gis état état na état pour que mu am revenus yu le trésor public mais ñun benn entité minoritaire wala ay ay ay ay borom daraja yor seen milliard ñëw tabax ci corniche bi boo pare di ko commercialiser à leur propre intérêt ñun loolu la ñu nanguwul. lu ñëpp bokk nga bàyyi benn nit parce que dafa yor ay milliards am ñëw tabax fa hôtel wala tabax fa xawma lam ba pare privatiser place bi di ko jaay. Euh, place dañ euh, koy jaay. Euh, mais la pression jamono y' a pas de y' a pas de pression l'être humain vit avec la pression tant que génnoo àdduna tu vis avec la pression. merci beaucoup Mais ça voilà baax bàyyi nga vite fait encore une fois euh, vu que nous avons accusé du retard donc.

Ah, donc euh, sëñ Fallou di jaajëfal waa Rési ah, mais euh, dama am ay samay nit internet yi tamit si la ah, ñu bokk mm, ñu mel ni mm. Aïssatou ay Aïssatou Touré ñu ngi koy jaajëfal bu baax